xool leen mooy ndaw soo su ñu naan xawma asulaw bi xawma borom làmmeñ woowu di mel ni asib moo dem seedi cawlaay ci appel bi de gis ngeen ko gis ngeen ko te ay doomu baayam ay doomi baayam ñu bokkal baay Serigne Abdoulaye xam naa ci ñoo xam ne buñ añee duñu reer buñ añee duñu reer ñii location du leen bëgg a rey gis ngeen ko waa jii du ma tudd turam de mais cawlaay

wonto téeméeri junni yi seen mars xam ngeen ni ki dooma xaram deug la li tax mu nekk dooma xaraam cawlaay mi taxaw di joxe ay paas cinq cent man gis naa ay doomi bayam yum bokkal serigne Abdoulaye taw ñoo xam ni billahi waxuma la problème ay connexion ak ay crédit yi nii de maanaam lu nu lekk sax da leen di të billahi wal kitab do ay tiaxan duma ko rusa wax fi de ndax seen yi ñuy def buñ ko bàyyiwul seen dom bayyi sonu yépp lay genn ni leen ki dafa sonu ki dafa sonu lol nak àggagun ci mais barki rasulullahi lima di wax do ay tiaxan te amul ben layen bo xamni dekk nga malika wala nga dekk yembal wala nga dekk yof wala nga dekk kàmbareen fepp fu serigne abdoulaye thiaw am keur nga weddi limay wax amul limay wax dama ko xam ay doomi cawlaay dooma xaraam la ki vere dooma xaraam la vere doomu xaraam la vere dooma xaraam la waaw day day day sa cérémonie officielle ñom seen cérémonie officielle ni leen ko defee ni de leen defee seen cérémonie officielle ni woy géwél ni de leen ko defé lu toll ni bisub sayidina limamul Mahdi yu xoolal rek. dara gënta yées lii déglu leen bii Abdoulaye Diouf Sall balaa nga naan xottil yére nga naan ndax xottil nga sa bopp ba pare. oh balaa nga siy topp Sénégal mm-hmm. xew bu mës a am waxuma xew mais chaque vendredi Abdou Mbaye.

dañ la takk cawlaay ba cawlaay taxaw naan ay garambu bu deux cent cinquante mille cawlaay Abdul sëñ sëriñ Ablaay ba muy sol ab ay garambu bu bàyyi Diouf saar juddoogul sëriñ Abdoulaye Thiaw ba muy dem ba muy sol garambu bu di dem Casamance di dem fu nekk juuf saar baayam juddoogul Casamance googu dinaa ci ñëw ci laayef bi sëriñ Abdoulaye Thiaw ba muy sol ay garambu bu di dem fu nekk ci réew mi bayu juuf sar juddogul dooma kharam ji ya bon ya yes yaay dooma ram gis ngeen euh, mu ngi taxaw naan élection yin jóge ñoom perte gin euh, perte perte gañewun dakaar ak cant gu rëy la Diouf saar lay baab de parce que Macky Sall remaniement bi mu koy wàcc de Diouf Sarr day wàcce dañ koy wàcce te bu buñ ko wàccee kii dañ koy fase man nag am na lu ma la waxoon bul fi def mën a ménopause bu la Diouf fasee maa ngi nii taxaw parce que xam naa ne yow dooma xaraam nga nii nga yoreb xaalis di ko yàq xaalis rek ngay wër fi mu ne ku ne sa seeni doom moom sant wu nekk lañuy am yéen xaalis ngeen di jaamu mais bayil ma benn place bul dagg sam tu njur gi bul meuna pose lu leer la la wax xaar ma ma ngi ñew ñu am doom parce que dooma haram nga gëmu yalla yàlla say yéen saytaane ngeen di top ala rek ngeen di jaamu dooma haram ba sëñ Ablaye di sol ay garam bu bu sar bayam da judd dooma haram yi. Ablaye Diouf Sarr man ya fa ciow lay la doon gis gisuma keneen. macha allah gisuma Diouf Sarr laa doon gis sama chaque minute médecin yi ñu leen doon hmm. mu jël ay médecin mun naa ne hôpital lii lal bi mu mujj indi ci kër gi dëkk démb laa ko may hôpital bu Kambel daal di mu ba trois heures du matin quatre heures du àggale ko ci sëñ Ablaay la daan toog ba 3 heures du matin 4 heures du matin di ko xër ay cigarette ak yàmba àggale ko boo ko àggalewul ma àggale ko dooma xaram ji doo wax dëgg Diouf Sarr daan nek ci biir kër khalifa bi di tux di tux kenn wu ko wax bay Ndiine taw dooma xaraam la khalisa tax musu ci ñëmé wax ta mom mu ngi ci biir kër ga doomu xaraam dëgg moy bay Ndiine taw ak bopam bu ngand di dijje awadi bay Ndiine yaay dooma xaraam tuxum te fu ngeen toog ablay yeen di tux mais Diouf sar am tuxam lu tax du ngeen ci wax khalis bi mu yor di jox tawlay mu leen koy jox dooma xaraam yi xeyu leen gontu leen du ngeen wax ci tuxum Ablaye Diouf saar mi sëñ Ablaye ñaata at laa wax ñaata at ci ginnaaw avant muy génn àdduna doom yi mu jur ak man mii bu taxawoon xàmmeewu ci doomu Mamour Gadiaga ki mu jur. doom ak xaraam yi du ngeen wax nit ñi dëgg Ablaye Diouf Sarr nekk ci kër gi di tux di kër waa kër gi ñoom bàyyi njiin xetuk yàmbaageeg cigarette gi di leen xeeñ doom ak xaraam yi kenn ñi may wuccee wax ndax alal ju mu yor. manam de ngeen lim wax seigne ablay dégg leen manam bi yalla defé li gën lu leen de dëgg sama parce que nag ku nekk noonu duñ ko toog sa kër dëkk. waaw tabaski ren li ci baati ngi ci moo doy di par force bu ci nekk di ko eh, man nee naa leen maytu sama ñaan gi di ngeen wax yéen ñëppay wax te du ngeen ko tey billaahi di ngeen wax te du ngeen ko ngeen mu ni gitu. ren weer yi paase ni cawlaay tabaski mësta jot ba kër sëñ Ablaay gi nekk maleka Kàmbareen ak yëmbal mu yóbbu fa ay xar laa la wax ana Kàmbareen jug bu booy Malika booy Malika fen rek ngeen yàkkamti jug leen kenn du ko weddi ana waa yëmbal jug leen kenn du ko weddi kenn du weddi li ñaar fukki at ci xilaaf sëñ Caw euh, sër sërif Abdoulaye Caw Cawlaay géré lépp lii may wax nit du ko weddi kenn du ko weddi malika yeen wa malika lay bi serigne abdoulay ciow génnee aduna mu ñew fa ñew fa ci coobareem de khalifa bi fi nek dudu makhtar yalla nako yalla sam moko yoni ciow lay musta tek malika ñew fa di len seet si mësu koo def dëj bi bi mu moko te te Duudu Maxtaar moo fa yoni khalifa bi moko fa yoni pour mu ñew tay gi ne euh, jaala gel ko ko malika ciow ya ya dul yaa mën a duul kii moo mën a duul yow su ma amutoon lu may seet naa kat sa ndey maa ngi jéggalu de maa ngi jéggalu day cérémonie doomu xaraam bi ba pare. Oh. Hmm. bu mës a am waxuma xew mais chaque vendredi Abdou Mbaye. bu kàmbaree ñu may dégg. moo ko laaj moo koy chaque vendredi. mu ñaawal Serigne Ablaye mu ko ñuy. ñu doon deux ilaha illallah. yow yow sa Serif Abdoulaye jamono ji jël ay bu di jox sama baay yow jamono jooja yow da ngaa mësër caw lay yaa mën lay yow la yaa mën dul mais sa dul yi ya jaamu la yow la ilaha illallah ciow la yaa mën dul ciow la yeureumal sanday lali lali sanday lali ciow laali teud yeureum ko ngir yalla ciow lay ñaata nit ñolay lay pour nga jangal sa yaay kamil xam nga sa yaay ci lu mu nekk bar sax ge mu teud ciow la yaay dooma kharam ñii nga topp genn wàll gi am na ñoo xam ne ay doomu xaraam la comme yow fonku ñu seen ndey yi mais gis nga genn wàll gu ci ba gis nga asu lawbe borom tuun gu rëy dooma raam jooju làmmiñam woowu di mel ni asib alal joo ko jox gëm naa ne ndeyam la koy bokkal ay bokkam la koy bokkal mais caw laay yaay doomu xaram caw laay yaay yées yaa ñàkk looy bañ yow yow ñu ni kuy sa maam ñu ni Seydina Mandione yow la yey dooma kharam la ilaha illallah yow sa ya duul yi jàmm la ngay dul yaa mën dul ki mo moo mën a namu lépp lu war dara nam wax nga dëgg namoo dara ñaata jëkkër nga am jëkkër ju ci nekk nga boko amé bu yoré ya, xaalis da fexé fexé fexé fexé ba jural ko dom fexé mu daayif wala ngeen taggo oh. ah nga am fa ay ay bien dooma xaraam ji looy namm ah yow fi mu ne safara rek nga namm dangaa namm dara. ñu gañe leen ah. téegal seen ndey ba ngeen dee lan def ci élection yi. nekk suñu wàllu mbay mi. bu ma ay waay jàng tontu te mënoo tontu. xam nga lii man man booy Malika maa leen di dëkkoon xam nga yii muy wax nii kenn kaneen yoon lay waxal te yow caw taalal sa oto nga sol say dàll waaxu ba kër njoon nga ne ko yaay sama bàyyi gis ngeen bàyyi njiin caw mi ngeen naan mooy sunu bàyyi bàyyi doomu xaraam la lu leen. lu ngeen dugg mo leen ci duggal parce que du leen conseiller du wax ka tu deug neena leen fi jaayal nan ko ci terrain malika yi pour mu agale kërëm kambareen fi ne da bëgg a kër gu mag dooma xaram ji du leen wax deug njoon lay walé de fi ne ñi di wax ñi ñepp ba ci imam makhtar ji yor yor bi même du donte don nak nag walé activiste yi di leen walé tay ji don bim mu naan ay sayidina ma njoon yooyu yépp njoon la don bab mais garu walé mu ko garu walé da ko don bab mom da ko don bab ñoon lañuy garu waré mais gis nga nit bu reuy barké alxuraanul karim bis bu ma waxee lu amul ñu ni ma li nga wax amul ma génnaat fii démentir sama bop man complexe wu man awma ak reuy melu ma ni yeen ay doomu xaram gene de len wax deug yow caw lay fo toj nga naan bi sëñ Ablaye génnee la Diouf Sarr ñëw jox ma ay millions yu bari yaa Diouf Sarr a dëj sëñ Ablaye dinañ la boolee Diouf Sarr toj seen jottu ndey comme dafa ma jàppal oh. mën de duul yi rek a may rey. mën duulu cawlaay yi rek a may rey. bu Cambérène ñu may dégg. moo gën kañ lan gëj a teg bët sëñ Sërif Abdoulaye Thiaw avant muy génn àdduna bët ak bët ana ñi daan dem Yoff chaque àjjuma di fa julli ji di ziyaara ji kañ ngeen gëj a gis Sëriñ Abdoulaye Thiaw kañ geen ko gëj a gis kii ni chaque vendredi Abdoulaye Diouf Sarr maanaam da ko daan ñawal euh, gramme bu bu euh, deux cent cinquante mille Thiaw yaa mën duul. caw jàppal ci yàlla Diouf saar bu la fasee booy Malika ngii daa sañsewul rek mais juf Sarr ëppalewu ko gàtt la ko Diouf Sarr ëppalewul te maa ngi waaj a ñëw Sénégal ak samay walees goreel nga jublu ci sa bopp xam ne da ngay dee sa yaay sëriñ foofu sëriñ nekkoon Sénégal sa yaay dëgg na fa tànkam bii ànd ak ñoom bàyyi njiin caw ba sërif Ousseynou Laay bi génnee àdduna sa ndey ñu koy jiñ naan laali caw ak njiin caw ak ŋàbbu leen cawlaay fa nga waroon a doxe yow xam àdduna tey ana sëriñ yi sa yaay daan dem di liggéey sa baay Ousseynou Laay daan ànd ak baay njiin caw ana sëriñ yooya lu tax téewuñu sa ruug ndey sa ndey di dund ba heure bii cawlaay gëmal yàlla te nga xam ni fii lu yàlla nammul mënoo ci sarub ndeyam maa ngi jéggalu de mais sama xol day jeex parce que yéen bu ngeen nee kuy seen maam ñu ni Seydina Limaamul di yu ñëw Sénégal mesure parti bi ñu bëri taxaw di weddi Seydina Limaamu ni bàyyi laay du rasuulu laay du yonent bi ku ne taxaw di ko weddi lu tax yëfi doomu xaraam yi ngeen di def mais jëfi Seydina Limaamu bu ñëwaatoon tey ni ma yaa rasuulu laay kenn du ko weddi mais yéen ñun ñi nga xam ni fekkuma fi fekkuñu ko fi ay sëtama ki doomam lañ fi fekk tey jii ñun ñooña ñu bari ci ñun di ko dutee seen jëf ju téegal ndayam jii ngeen di defe ko waral mais bu fi Seydina Limaamu nekkoon li mu bind mu koy doxal ci sunu kanam feeñ ci sunu jamono jii mbindeef du ko weddi mais yéen ay dooma xaraam ngeen ay dooma xaraam ngeen gëmuleen yàlla balaa ngeen a génn seen kër yi ay Mamadou Lamine nag dañuy diwoo diwoo diwoo diwoo diwu ba xeeñ caw ngay taxaw di duul baali duul caw baali duul mu jël ay médecin mu naan hôpital lii lal bi mu mujj indi ci kër gi duul yi bërki démb laa ko may hôpital yow buñ hôpital la fi nekk am ay problème yow caw laay ngay jël ay lalu hôpital di ko yóbbu Cambérène di ko fa maye hôpitalu Cambérène boobu kañ lañ ko ubbi daa yàgg nan ngeen di ubi hôpital bu amul ay matériel ta sa jëkkër mooy ministre de la santé kañ lañ ko ubbi maa ngi ciy ñëw mooy jour bi bëy di duul naan xalifa bii Doudou Makhtar man ak mom sawala lan bokkee jox ko cër sa bay la sa rakki bay la mo fi wutu sa baay doomu xaram ji nga doon yàlla maanaam Thiaw laay nee na bi sëñ Ablaye Thiaw gaañoo Abdoulaye Diouf Sarr ci néeg bi la ko fekk jox ko ay millions yu bari ni ko dëju sunu baay bi maanaam Abdoulaye Diouf Sarr a dëj sëñ Ablaye kii saaga na kii saagan kii saaga na doomi baayam bi Abdoulaye Diouf Sarr dooma xaraam ji nga xam ni biir kër xalifa bi tux la fa nekkee woon tux tux tux cawlaay na leen wax dëgg yéen ñi toog di duul ne na eh, man bu ma dee tux yàmba Ablaye Diouf Sarr ma dàq tux yàmba te ci biir kër xalifa bi la koy tuxee loolu du ngeen ci wax wax leen ci loolu wax leen ci loolu cawlaay bàyyeeguma la de euh, cérémonie officielle bi jeexagul de man ak yéen ba jouru appel bi del si man ak yéen ba jouru appel bi del si cérémonie officielle bi jeexagul de en attendant nag ma am na beneen vidéo bu ma bëggoon a teg boo xam ne bi ma ko kiiyee daf maa kii TikTok te téléphone bi kiiwul TikTok bi man TikTok sax yéen dooma xaraam yi tax bugguma TikTok ay dooma xaraam ngeen maa ngi ci ci maa ngi ci gis waa jooju mooy doomi raam voilà na ñëw na xool leen lii xool leen. lay lay ay nga xam ni gaayen Baye Seydi nekk jigéen ñi buñ masaa takki jaaro muuru sax jaaro yi doo ko gis xoolal ay lii ay dooma xaraam ay lii yaay yaay yaay yaay yaay yaay bul dagg bul dagg yéen ci buumug iblis ngeen jàpp boo fi neetee wastasimoo bi hamdulillahi boo fi neetee walaata faraxoo ma toj sa fi neetee wastasimoo bi hamdulillahi jami xan walaata faraxoo rek ma toj sa gat dooma xaraam ji yéen jàpp leen ci buumuk yàlla gi yéen ci buumuk iblis gi ngeen jàpp dooma xaraam ji ayab alxuraan boobu wax dee nga ni yell na ci seen jataay bi ki yëpp bon bul dab yi dafa am ku nekk ci vidéo bi koo xam ni man damaa jaaxal dama koo xool xool nii de jukki yi mais vidéo bi daa mel ni du nangoo àgg toxal man duma leen feral de man li ngeen fi def rek laay indi téegal seen ndey Dia ki nan ko bay ci sey om ki bu don bay ci say oom ayta seen bi mi de fu caw laay nekkoon yaa ayta seen bi mi de ciow lay fo nekkon bi ñuy monte kërëm gi ay kilim di fexé ba Macky Sall diko jël euh en charge Diouf Sar premier ministre de la santé nekk sa jëkër ciow lay fo nekkon yow ñi di do ni leen da ngeen di dul

vidéo bi dafa am benn waay joo xam ne mooy waa ji yoroon euh, euh, Mercedes bi doon dawalal Mamadou Lamine gis ngeen ko euh, mooy waa jooju ñu naan Ousseynou mbub gis naa ko ci vidéo bi daa wayaane woon cawlaay yow Mamadou Lamine kii nan la mën a di la di yor sab oto nee nan ab transitaire la de man xawma oto bi mu la dugal oto jàmbur oto moodu moodu yi la jële port ñëw yóbbu la ci di wi wi di uti bës xawma nu mu demee chaque jour muudu muudu yaa ngi fi nekk jooy seen problème yi ni daj ci port bi seen problème yi ni daj ci poor bi yéen waa douane yéen transitaires yi dimbali leen muudu muudu yi leer na ma ne oto jàmbur yi bu ñëwee moom ngeen di jël di ko sàcc génn di ko doxaaneeg di ko yóbboo sëriñ ci ay cérémonie officielle ak lu kenn xamul seen yëfit doomu xaraam yi ngeen di def bàyyi leen ko yow Ousseynou Mboup gis naa la kër Cawlaay gis naa la fa ci vidéo bi daa àggul mais gis naa la fa doo ko weddi doo ko weddi dooma xaram ji yow maa ngi yor sa vidéo yi bàyyi ak sa bagage yi bàyyi yoo xam ne dama cee waral def live yow bëgg nga régler du yow mas naa laa yóbbante si cawlaay dëgg la dëgg la yaa siiwal sa bopp yaa fa dem ma gis la yaa siiwal sa bopp dooma xaram ji cawlaay mii du ngeen ko wax tey mu jàppale bokkam yi fi nekk di sonn bu ngeen jugee wër di duul di xëbër yi di ko wayante doomu xaram ji am na ñu mu mën a dimbali am na magam yoo xam ne appel bi ñaata borlon yor doomu xaram ji Ablaye juuf saar ñu def ko ministre de la santé alalu réew mi mu war koo jël def ko ci réew mi doomu xaram ji mu la koy jox nga koy cekaayee di ko pasar pasaree Macky Sall wàcceel Diouf Sarr mu fase cawlaay ndax ma takk ko doomu xaram maa ngi ñëw yow coow laay ba baneen maa ngi ñëw ci yow euh, nit nag du naafiq am na waajoo xam ne yaakaar naa xawma Espagne xawma Italie xawma fan la nekk mooy waajoo ju sant Ngom bu dee li ngay wax ci kër Seydina Limaamu dëgg la ci yow dégg naa la ngenan ya awa rasul li suma ma senegal dama koy ray nangam nangam kerem kerem king king king wax nga waxa waxa waxa waxa waxa wax ba përiyee kaay ma wax la ya awa ki ko dooleel man bama setané seetaanee vidéo bi la ni len amna ku koy kat ci sang si ya awa bi ma setané vidéo bi ak bagasam yu bari muy ciëfër ciëfër lan le leen len leen len gis ngeen fi marisu nga xam eh, sorol be ñu tuddé lampe fall nga xam khalifa général de bay fall sax musu sa yek gis ngeen mari su sa kaw muy sinap dama leen di wax ben mbir maytu leen activiste yi maytu leen ñu ya awa eh, cheikh golo cheikh golo ma sa yëmbal mo koy at mo koy at gis ngeen seen tok bu jekk bi fi de la sabar yi sabar ah ya awal dia gini la ya, ilaha ya, illallah ya xool leen cheikh golo jàngkat bii dooma xaram la kii te mu dëkk yëmbal sant jóob xam ngeen ko kii moo ñaf ndeyam yaay doomu xaram yow li tax ngay doomu damaa am vidéo yu ma gis gis benn sëriñ buy wax yaa ngi koy jottalil ah ba pare yaa ñëw ci jataayub euh, yaa awa laayeen yi dee leen wax dëgg sama mbokk laayeen yi dee leen wax dëgg yàqkat yi fu ngeen dalee ci seen kaw ñu nekk ci seen ginnaaw téegal leen seen ndey kon ñoom nit du mën a tooñ dee leen wax dëgg yaa awa caga bii caga bii de moo fi séewoon infidèle joxe boppam ngir oto yéen a koy seetaan seetaanoon ngeen ko envoyé nan ma ko moo fi demoon si oto oto tax oto oto tax oto mu joxe njuupa njaay li oto dee tax mu joxe njuupa njaay li ba pare di duul nan bi may nii gisalee te maa violé ci vidéo bi ci ci ci théâtre bi noonu la day duul am na yenn róor yoo xam ne boo koy séy doomu xaraam nga yow xam nga bu gudd xam nga bu gàtt doomu xaraam nga waaw bun bun bun bun xàmmee nga bun diw karité xàmmee bun diw ñu ma dooma xaram ji yow yaay dooma xaram la légui nak day ñew ci daj depp gi xaram hmm, xol ma ngi ñew li fi xew li fi xew sama cérémonie officielle man duma ñii de di ñew di dul man duma def lool man duma ñew di len fenn man liñ fi def la len di indil waaw liñ fi def la len di indil de waaw yéen laayeen yi laay waxal damaa bëgg ngeen yeewu man Seydina Limaamu moo ma yónni bàyyi laaye ma yónni tey jii yàlla dogal na am na nit ñoo xam ne ndeysaan yow jal yow laay waxal yow jal caw boo xefee li nga dem bant ya yow jal caw laayeen yi moom xam na moowu bant ya yow boo xefee li nga dem bant ya barki naa Limaamu bàyyi leen ma fi teg leen fi booy Malika ni yak bu neex bo xamne kup kilifa la kenn duko lal ta borom ñewul baye len fi nonu boy malika de lor rek la len di wax bant ya ala ila ila la ah da nga koo yàkkamti boo ko rek bal boy malika lu leer la ya. leer legi nak nit gis ngeen ya awa li mu def ci appel bi yeen yépp di ci wax dengen indi fa ay gewelam ay kat sabaram apix apix de la ya awa dem ya awa tiaga bi tiaga eh, Cheikh Galo bi Cheikh Galo Cheikh Galo bal tati ya awa yi Cheikh Galo bal tati ya awa yi ya awa yi tatam yi di ku nekk ko ruh gis na bun diw ment loto gis bun diw daw gis bu ndiw karité bu nek gis nako bayil ki sa lèr gi yow man yow sax ak lèr yow ak lèr yow lèr na ma ni li tax nga tardé yor yor bi ba ñew fa di bu buuxante gaa yi di fa jàppante ci ya aw mi nga nekkon mu lay maccal dooma xaram nga caga bu mag nga limay wax yeen way yëmbal wéddi len ko deug la wala du deug Cheikh Galo bëgg na bajo bëgg na xaaliss doomu xaram la doomu xaram la Cheikh Galo mi. bëgg na jigen bëgg na xaaliss yen ni ngeen bëggee njuba njaay te nangu leen a liggéey te bu doon yen ni ngeen njuba njaay yi ci mbedd mi ah da da ngeen koo bëggee njuba njaay yi ci seen biir kër yi man ma mën a bëgg yen njuba njaay yi ci seen kër yi yen du ngeen ci wax am na lu ma dégg nag am lu ma dégg de mais wóoru imam dégg naa daa am jabar France mais nag wóoru ma wóoru de mais dégg naa imam Maxtaar daa am jabar France imam Maxtaar mi ma fi mooy jëkkëru awañ awa euh, doomu Baye Seydi ci Coro Njaay mu bàyyi Seydi Thiaw te ma ni leen euh, fëggul imaam dégg naa am na jabar France dama koo dégg dinaa ko gëstu nag man nag yàlla dimbali na ma ah léeg-léeg ma dégg dara am ñoo xam ne ma laaj leen ñu ne ma sa waay loolu amul nangam nangam mais billahi su ma demee euh, def benn paa ñaar ñett ñeent juróom juróom benn day xeeñ damay teg juróom ñaar mu ñor. day nek deug day nek deug imam makhtar deug na am jabar france imam tayit yow bari nga ay bari nga ay tank france imam makhtar imam makhtar yow mi taxaw ci min bari di khutba nit ñi nan yalla neena na seydina yonenti bi neena mais imam lu yalla wax ci am jabar bañ ko bañ ko ki baña baña baña baña bañ ak mom ci kaw lal bi lu ci yalla wax dégg naa am nga jabar France loola bu amee danga nga koo nëbb waa yoof mais imam am jabar ju nit ñi xam ak ñàkk am ju jabar joo xam ne kenn xamu ko loolu lu ci lislaam wax bàyyi laajati de bu ma kenn yóbbu kër yi amati tax fii laa laajoon ngeen di ma saaga lu nekk ngeen wax ma ko mais bis bu ma fi nit saagaatee imam Maxtaar nag du ma ko saaga du ma ko saaga de moom Mamadou Lamine du ma leen saaga ak maam Diin mukk ci àdduna du ma leen saaga mais imam maxtaar dooma xaraam la Mamadou Lamine doomu xaraam la mais mukk ci àdduna ma saaga leen parce